asalaamaaleykum sama gars ñu ngi leen di ziare bu baax a baax fii ci Rewmi Sport talaata le 13 août ñëw ci revue de presse bu fekkee ne abonné go abonné lii di vidéo bi vraiment c'est hyper important pour lu jëm ci wàllu chaîne bi bu fekkee ne donc da bëgg jàllale say publicité aussi mën nga ñu ci numéro yooyu ci suuf disponible nañ toutes les plateformes mu ñëw ci revue de presse dañ koy commencé donc fi nga xamante si ne moom mooy ci ak club bi nga xam ne mooy FC Barcelone donc victoire pour les monégasques donc 3 euh, euh, di euh, ki ko dugal moom na li nga xam ne moom mooy punition punir na ñi nga xamante si ñoom ñooy club boobu nga xam ne moom FC Barcelone kon premier bi pour kii di Lamine Camara ci moyen équipe boobu nga xam ne moom mooy AS Monaco ñëpp di xaarandi donc benn saison bu rëy a ci équipe boobu nga xam ne si ne moom mooy ci AS Monaco moom ki nga xam ne moom mooy eh, Lamine mi nga xamante ne année bi la ko équipe boobu da AS Monaco jënde fële ca FC Metz dañuy continuer toujours wax ci journal bi nga xam ne mooy Miroir Sport dikk na bi nekk fële ca Real Sociedad comme ni mu ko defee woon daaw ci ay club yu ci bëree bëri ku ci demee ne Bayern na Arsenal wala même FC moom moo ñam ci revue bi ki nga xam ne moom la ñu tuddee Martin Zubimendi ndaxte démb ci li nga xamante si ni mooy alterné gi ki nga xamante si ni moom la ñu tuddee Martin Zubimendi daal di daal di xibaar ñi nga xam ne ñoom ñoo yor Liverpool na leen kat remercier naa leen trop ci bëgg-bëgg bi ngeen am pour indi ma ci club boobu boobu di Liverpool waaye ba ma waxtaanee daal ak ñi nga xamante si ni ñooy sama waa club li ma gis mooy li gën ci man mooy ma toogaat fii nga xamante si ni moom mooy ci Real Sociedad donc ki nga xam ne mooy Martin Zubimendi sama gars ñi officiellement rejeté na nga xam ne moom la ñuy tuddee Liverpool et pare na pour toog te am na nu bi demee sax dina yokk lii di contrat am dañuy daal di continuer toujours foofu ci biir Angleterre wax ci journal bi di Star Sport moom dikk na ci équipe bi nga xam ne mooy Arsenal di les vice champions d'Angleterre ñoom équipe bu Arsenal bi xam ngeen ne depuis daanaka quelque temps ngi nii nag yëkkatiwuñ benn coupe loolu nag nekkut loo xamante si ni lu neex la kii di euh, Arteta mais rawatina kii di Gabriel Martinelli mi nga xamante si ni bokk na si ñi gars ñi gën a xaarandi ci club boobu di Arsenal moom ki nga xam ne mooy Gabriel Martinelli di numéro 11 bi nee na kat il est temps pour bi di Arsenal gagné li nga xamante si ne moom ay coupe nee na année bi nga xam ne moom la ñu paree pour dëkkmal ko nii dafa doon année boo xam ne année Arsenal la war a doon année boo xamante si ni Arsenal dafa war a gagné li nga xamante si ni moom mooy ay coupe kon loolu la kii di Gabriel Martinelli daal di teg ci loxo loxoy supporteru Gunners yi dalal seen xel ne année bii nii année Arsenal la war a doon dañuy daal di continuer après Star Sport daal di jubali donc ci soxnaalu euh, beneen soxnaalu engrais de Sun Sport donc dikk na ci ki nga xam ne moom la ñuy tuddee euh, Gonax Galaguer donc tey jii nii ci mardi bi xam ne lu mat daanaka ki nga xam ne moom mooy Gonax euh, di nekk ci benn hôtel boo xam ne daanaka moom kese fa nekk moom kese fa nekk donc loolu nag Chelsea nee na du lu muy man wàcc kii di joueur bi kat wàcc ko foofu ci Madrid denc ko ci benn hôtel te signé gul Atlético de Madrid officiellement loolu lu muy man ba tax na tey jii nii ci talaata yónnee li nga xam ne moom mooy ab euh, vol donc jet privé euh, pour que ñu def ko ci indiwaat ko foofu nga xam ne moom mooy ci Chelsea bu ko defee mu toog fa ba keroog Atlético de Madrid ak ki nga xam ne moom mooy Chelsea lijjanti li nga xamante si ni moom moo dox seen diggante ci ab ñagas ñagas mais li nga xam ne moom moo wóor ba wóor mooy transféré kii di gën a galaage mi ngi commencé di am li nga xam ne moom mooy danger bu rëy rëy. dañuy bàyyi ko donc foofu ci biir Angleterre mais continuer ci biir Madrid googu nga xam ne Gallagher fa la nekk te war faa quitté tey dem fële ca Londres dem fële ca As dikk na ci ki nga xam ne moom la ñu tuddee Vinicius Junior donc offre pour Vinicius Junior donc venant d'Arabie Saoudite ki nga xam ne mooy AS nee na am na benn club bu nekk ci Arabie Saoudite bu yëkkati xaalis bu takkoo takku pare pour jënd ki nga xam ne mooy Vinicius Junior club boobu noonu mooy Al Ahli bu ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Edouard Mendy ki nga xamante si ne moom mooy AS ba tey mi ngi yëgal ne Vinicius Junior ak kii di Real Madrid ñaar ñëpp dañoo bañ Real Madrid nag yëgal na club Arabie Saoudite boobu ne ko jour bi moom am na un milliard lay jar donc mille millions lay daal di jar donte nag cher na trop pour Al Ahli mais Al Ahli moom ba tey day insister bu ñu sukkandikoo ci journal bii di waa AS. après AS dañuy continuer foofu ci biir Madrid ba tey wax ci beneen journal di Marca di que ne donc ci ki nga xamante si ni moom la ñuy tuddee Julián Álvarez donc ci club boobu nga xam ne mooy Atlético de Madrid donc daanaka leer na nañ ñi ki nga xamante si ni moom la ñuy tuddee Atlético de Madrid enregistré na li nga xam ne moom mooy deux bons recrues après kii di. Charlotte et maintenant ki nga xam ne moom mooy Julian Alvarez Julian Alvarez nag gaañ yi numéro 19 lay takk signé na benn contrat ba atum soit donc 6 ans donc ki nga xam ne moom mooy Julian Alvarez xëy na euh, les supporters euh, col si Sonoros di waa Atlético de Madrid ñoo ngi ñaan. succès bi nga xam ne Aguero amoon na ko jamono bi pour City xam naa ñi ngi am succès boobu ci Julián Álvarez mu jóge City pour Atlético de Madrid parce que ki nga xam ne moom mooy kii di euh, kon Aguero ci fàttali mooy meilleur buteur histoire Premier League joueur étranger maanaam joueur boo xam ne dëkkoo euh, ci réew moom nga moom di donc jubali nga xam ne moom mooy ca capitale Catalogne di Barcelone euh, fekk fa soxnaal bi di Mundo Deportivo donc manque d'équipement manque d'équipement donc moom la xamle maanaam daal démb club bi nga xam ne mooy FC Barcelone daal dina décevoir li nga xamante si ni moom mooy ay fansem yi nga xamante si ni fii ak juróomi fan équipe bi di FC Barcelone war a daje ak ki nga xam ne mooy li nga xamante si ni moom mooy première journée championnat bu Espagne ki nga xamante si ni moom mooy FC Barcelone démb mu daje ak kii di Monaco bi kii di Lamine Cabra donc défaite bu rëy rëy la Barcelone daal di am ci trophée Juan Camper boobu nga xam ne dañ ko considéré comme un match amical mais un match aussi dernier match avant le début de la saison mu doon un match boo xamante si ni buy jox parfois li nga xamante si moom mooy li nga xam ne moom mooy les supporters kii di AS Monaco loolu la ñuy journal boobu euh, di waa nga xam ne mooy Mundo Deportivo dikk na ci waaye ñun la ñu soxal nekkatul match boobu dañuy moom la ñuy tuddee euh, waa Mindoré Portivo nee na Barcelone n'exclut pas donc kii di Nico Williams mais nag Luis Diaz c'est une option actuellement ki nga xamante ne moom mooy FC Barcelone bàyyeegul ba tey ki nga xam ne moy mooy Nico Williams waaw bu ñu sukkandikoo ci Mindoré Portivo Barcelone ba tey ji nii bàyyeegul Nico Williams waaye nag. Barcelone mi ngi commencé di xool yeneeni i yoo xam ne bu fekkee ne Nico Williams dikkul ñooñu dinañ mën a dikk bokk na ci ñooñu le numéro 7 de Liverpool kii di Luis Diaz donc Luis Diaz mi nga xam ne démb dikk nañ ci benn journalu anglais moom ñu daal di xibaar ne Liverpool pare na pour taqali ko ak moom bu fekkee ne gis na lu tollook juróom benn fukk ci ay millions kon bu fekkee ne kii di Nico Williams dewul au Barça am ñun mi demee Luis moom mooy doon lii di son remplaçant dañuy daal di continuer après donc Espagne jubali fële ca Italie fekk fa la Gazzetta dello Sport dikk na ci ki nga xam ne moom mooy équipe bii di Juve Juve mi nga xamante si ni pare na pour def li nga xam ne moom mooy ay mercatum yu mujj mais aussi tamit ci club boo xamante si ni club bu Estruc la ñu koy tuddee AC Milan euh, latéral wala bokk défenseur central bu équipe bii di AC Milan ñu koy tuddee Pierre Kalilou donc nga euh, xam ne

jii nii ci li nga xam ne mooy talaata bi dinañ jot si kii di Bresciani donc di li nga xam ne mooy milieu de terrain bi nekk ci club ba li nga xam moom mooy Frosinone ci jamono jooju kii di Lukaku doit donc attendre un peu waaye ki nga xam ne moom mooy Lukaku ba ci kanam ki nga xamante si ni moom la ñuy tuddee waa euh, Napoli am yeneen ni Euh, problème yoo xamante ne moom la ñuy lijjanti une fois que donc problème yooyu yegg na Lukaku donc am na nu muy demee dina signé ci fàttali nag depuis presque un mois Lukaku déjà trouvé na accord jubboon ak ki nga xam ne si moom mooy Napoli en terme de contrat salaire et tout mais nag euh, dina xaw a jafe ba tey kii di Victor Osimhen continent di noonu joueur Naples et que Lukaku tamit dikk ci Napoli donc Victor Osimhen bu demoon tey suba daanaka Lukaku mën dañuy daal di bàyyi ko donc foofu ci juróomi championnat yi gën a mag waaye continuer biir Europe dem fële ca Portugal wax ci journal bi di Odiogo donc dikk na wax leen am na ñaari joueurs yoo xam ne Paris soxlaatu leen li seen direk ba soxlaatu leen di kii di Danilo Pereira di kii di Milan Skriniar donc ki nga xamante ne moom la tuddee Danilo Pereira moom nag xëy na du ñàkk fu jëm bu fekkee ne bëgg naa dem euh, club bi di FC Porto fa nga xam ne contrat bi si des un an donc la moom kii di Danilo Pereira kon soxna bi di Ojukwu di benn soxnaal bu nekk foofu ci biir Italie euh, ngi xamal ne kii di ci li nga xamante ne moom mooy club boobu di FC i publicité man ngeen ñu woo donc ci numéro yooyu nga xam ne yéen a ngi i euh, pub disponible nañ euh, beneen journal bu nekk foofu ci biir Portugal mu ngi ni xibaar ne ki nga xam ne si moom lañ tuddee euh, David Neres donc David Neres gaa ñi dégg nañ ci daanaka plusieurs jours euh, ci li nga xam ne mooy mercato mi ngi jege trop fi ñu toll nii parce que actuellement. y a des donc li nga xam ne moom mooy ay dem ci li nga xam ne moom bi yu jugee donc ci ki nga xam yoo xam ne si nii donc day bilancé maanaam ki nga ne moom la ñu tuddee David Neres donc loolu nag moom moo tax ki nga xam ne moom mooy brésilien bi fi dool nii jugee ci kala boobu nga xam ne moom la ñu tuddee Benfica la gën a jëkk toog ci club boobu nga xam ne moom mooy Benfica gaañ bu leen fàtte abonné euh, partagé ngeen activé cloche bi aussi pour que tey jii nii ci talaata gi benn information ci mercato bi bañ leen raw fi nga xam ne moom mooy ci réew mi sport jërë ngeen jëf ba ci kanam incha allah.